تعظيم بالسنة يقودنا للجنة بازدياد المنة لمغلس معاصم وأسرين بموم دفع أبو سقوتي النبي صلى الله عليه وسلم دفكو بقون بمو جنال كل لب جنال كل يب وهي دانا نوخني li mu koy bëgg bëgg nag bëgg ko ngir bëgg aljanna wala ngir ragal sawara jëmmam ju tëdd ji rek la bëggoon wax na ko ci ay barab yu bari yu wuute mi waxe naan daani ila matxi nabi xubbu daatihi tagg gi ma koy tagg day bëgg gi ma bëgg jëmmam ji rek moo tax sallallahu alayhi wa sallam am na feneen muy waxee ne دعاني لخدمة النبي حب ذاته لقي جيم كوي لقي اللي صبو جيم مجرك صلى الله عليه وسلم موتخ موتخ لم كوي لقي مسيس سوغيس كوكو دفن لم كوي تقي مسيس سوغيس كوكو تقي أه، دان وخني مام سنو برام سبحانه وتعالى مو جاب تي لوخوم با تك تي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم تيكو با گرم واركو ديلو وات كو سنو دلني الباقي على على محمد وقادني الماحي لربي الصمد سنو بروم ما ما با تك تي لوخ يلي صلى الله عليه وسلم سنو تي با گرم ديلو وات سنو بروم سرين توبا موم دافا جوك رك بور جيم سي الله سبحانه وتعالى waaye nag ba mu demee ba fëgg bunta bi yàlla subhaanahu wa taala moom ci boppam mooy wax ne euh, yàlla moo ne ko nag yow de jàmbaar nga ñëw nga ba agsi waaye dafa am koo xam ne nii mooy sama loxo képp koo xam ne ni dangaa jóg jëm ci man euh, ci moom ngay jaar muy yonente bi alayhi salaatu wasalaam kon moo tax mu ñëwaat nag euh, fëggaat bunta bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam ngir mu yóbbu ko ci boroomam ba mu nekkee ca loola tamit gis ngeen ne la nga xam ne ni moom la fëggee bunta yonent bi alayhi salaam mooy ay teggin ndax dañuy wax ne jaamu yàlla mën naa àggale nit ki ca buntub xadaratul ilaahiya waaye caabi bi nga xam ne nii moo koy ubbil mooy ay teggin kon nag ba mu ñëwee ci yonent bi salaam wan ko teggin yu mat sëkk dem ba nga xam ne ni dundam gépp daf koo xaaj euh, salaatu sitta bi madixi sitta nga xam ne ni juróom benn weer yi nga xam ne ni mooy njëkk ci at mi euh, daf koy tagg yonente bi aleyhi salaatu salaam juróom benn weer yi ci des muy julli ci moom léppam mu jël ko jéegal ko ci yonente bi aleyhi salaatu salaam yonente bi salaatu salaam comme niñ ko xamee mooy ki nga xam ne moom la suñu borom tànn muy ndawam li nga xam ne moo mujj ci ndawam yi daa yónni mu ñëw nekk lampe bo xamne day nital man nani humanité ngirum teg leen ci siratul mustaqim serigne bi nak bi nga xamé ne ñewna suubu yoonu yàlla muy siratul mustaqim gogu suñu borom ci bopam mom moko tektal tegtal bi sallallahu alayhi wasallam ndax dafa juk dog yoon wa suñu borom xamal ko ne ko it yoon wi da am ko xamne moy ki nga xamne moy mooy gindikat bi te kooku mooy yonent bi salaa salaam sëñ bi ci bopp moo ko waxal boppam dallani allahu ala muhammadi wa qaadani muhammadun lis samadi nee na yàlla moo ma tegtal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nag wommat ma yóbbuwaat ma ci yàlla kon day mel na ñoom seen relation relation la boo xam ne man naa ne yàlla moo leen boole waaw léeg-léeg nga gis nit mu xam ne dafa am euh, wóllëre ak nit mu ne diwa ñu xamale sëñ bi nag mën naa wax ne yonent bi yàllaa ñu xamale ndax nee na yàlla ci boppam moo ko tegtal yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, yonent bi doonoon léppam nag nga xam ne moom la teg ci kanamam teg ko ci gannaawam teg ko ci ndeyjooram teg ko ci càmmoñam nga xam ne lépp lu muy def euh, balaa caa def day fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam jox ko ci ndigal loolu ci histoire sëriñ bi danañ ci gis yu baree baree bari yoo xam ne sëñ bi day wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ma digal wala yàlla jaare ci moom bëgg ci moom dara jaare ko bi sallallahu alayhi wasallam nee bi sallallahu alayhi dafa ko féetewoo faral ba ñëpp xam ko eh, jox ko it lu ñëpp teg seen bët eh, bëggoon ko bu mus mus sa bëgg dara it gaar ko moom moom bi لولا يخنان ظهور رسول الله ليقاد المنى وقد كان عني كل سوء يسدس ما سن بروم دافا ديف يندب سان سن بغل ما بوبام با بغ غوغي كون تك ني سي بت خيوالي يت كون غيسنا كون سيرين بي ليمو ام سي توفيق سي سي سي سي سي ci ci ci dundam ci mbind mi ci ci léppam loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ca la bàyyi ko kon mu ne loolu moo tax mu fonk yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba tax mujj na bëggutoon dara moom sëriñ bi xoolutoon dara wututoon dara lu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne lahu dahra niyaati wa ilmi wa xidmati wa ruuxi wa jusmaani wa kulli bila naa yéene sama dund ko jox yonent gàmm moom dafa mel ne boo delloo ci ay mbindam Sëriñ Tuubaa danga ci gis ay wax yoo xam ne nii dangay xam ne moom jamono ji nga xam ne nii moom lañuy askanal ci yàlla lépp la fonkon ndax yonent bi alayhi salaatu dafa doon wax ne bu kenn sikkal lenn ci àdduna wala lenn ci jamono ndax ku sikkal jamono kat yalla ngay sikkal ndax yalla moy borom jamono kon seigne touba non la gisee won bis yek wer yek at yi nga xamne ni lepp rek da fay delo ci boromam waye nak gam mel melne ni am na bu reuy bo xamne ni joxon nako ko ndax dañuy ñi nga xamne ñoko xam ñoko ñoo ñoo dund ak mom dañuy gis ne bu ñeuk guddi gam gàmmo la la nan la nan la nan la nan magal nga xamne ni laylatul mawlidi ay bari yo xam dang fay gis waaye ba mu jàgg mu mel ne xeeb na loolu ci ci ci digganteem ak yonente bi aleyhi salaam mu dolli ci bis bépp nga xam ne bëccëg géeg guddi gépp lay boole kon booy gis tamit am na am na ab tolluwaay boo xam ne nii daanaka xasaay yi muy yi ci gàmm euh, yawmul mawlid lay lay lay jëfandikoo nga xam ne bis bi lay wax waaye dem ba mu yàgg nag nga xam ne nii tamit shahrul mawlid lay wax nga xam ne weeru wépp lay far màng loolu kon dangay gis ne euh, fonkoon na ko fonk koo xam ne nii Euh, ba pare jël ci ay position parce que maanaam laata muy ñëw gis ngeen ne gàmm bari woon na ay ay ay ay warante ñi naan bi daalaak waruñ koo def ak nangam nangam waaye booy booy gis ay waxam danga ciy gis waxuma la sax na ne dagan na wala nangam nangam waaye dafay dem nga ba tanzimuhu yan xatimu maanaam guddi gàmm nga nga màggal ko dafa nekk loo xam ne dafa war. nga xam ne loolu kon day firndeel. cofeel gu mag gi nga xam ne bi ëmbaloon na ko sallallahu alayhi wasallam waaye loolu nag li waral mooy xam gum xam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax nit bala nga koo xam dëgg-dëgg day fekk bala nga koo bëgg dëgg-dëgg day fekk nga xam ko xam dayo bi nga xam ne la moom la am ndax yonent sallallahu alayhi wasallam day xéewal goo xam ne borom moo wàcce ci jullit ñi te loolu yàlla moo wax laqad baasa laqad manna allahu ala al muminina id baasa fihim rasulan min anfusihim yàlla moo ne damaa xéewalee jullit ñi ba nga xamee yebal naa ci ñoom ndaw te ndaw loolu di yéen sallallahu alayhi kon xéewal la goo xam ne euh, suñu borom dañu ko wàcceel sëriñ bi nag xam dayoo xéewal bi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi am moo tax mu teg ko maanaam léppam rek mu ko ji yonent bi sallallahu alayhi xam ne cofeel googu àgg na ci koo xam ne sëriñ bi di ci wax wax yu yéeme yéeme yéeme euh, di wax ne bu ma tey yonent bi sallallahu alayhi bu doon dox ba ak dëkk nara jam tànkam ma jël sama lex maanaam tegal ko ko mu jaar euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaar ci saw saw sama kaw bu leex dégg gi jàmm loolu yaakaar naa cofeel féetewu ko kaw. daf ko fonkoon lool lool lool ndax wax nañu ne bi muy tuut tànk nekk ci ron juróom la ko tàmbalee def waaye nag gàmm gu fees goo xam ne adduna sépp dañ cay teew mbakki babal gii la ko jëkk a def en 1883 muy gam go xamne gu jexetal ci mom la sëriñ bi daf ko daan waxtane ba bind na ko sax am fi waxe nan ahyaytu axyaytu mawlida nabi min asasi qadni foo xool min am sachin dundal na gam ci atum hashashin gàmmu googu yi sunu borom defal na mi ci xéewal yoo xam ne ba ba ba ama xamsa Chine xéewal yooyu mos a dem ah, ama xamsa Chine mooy 1301 ci gàddaay gi ama xamsa Chine mooy 1345 kon diggante bi yàgg na waaye nee na gàmm gu njëkk gi mu defoon Mbàkke gi xéewal yëpp sunu borom fay def na di bu yàgg xéewal yooyu kon day mel ne waa Mbàkke kon am nañu sas. ndax tawfiix jooju moom la ko ñoom la ko suñu borom defal eh, kon ñu war a góorgóorlu baax ci fonk gàmm eh, te gën a góorgóorlu ci lu bax xamni ne ñoo ñoo nekkoon ak mom oh, fonk gi nga xamni ne ni moom lañ fonkan mu la fonkan gam bokku na ci sax li nga xam da nañ jëflante ak mom kep ko xamni ni am nga ci mom aajo da ngay bayyi ba wëru gam dugg ndax dawul gantu dara at dawul gantu waye rawati na nak manam bu wëru gam xasse ñew lépp loo xam ne ni soxla suñ ko suñ ko diis la wala soxla suñ ko wax la daf koy daal di faj kon loolu dafay wan fonkal gi nga xam ne ni moom la fonkoon weer wi euh, ndax dafay dafay wax ne moom mooy zarf zarf bi nga xam ne ni wala mooy mooy mooy enveloppe bi nga xam ne ni yàlla ba mu bëggee denc yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci weer wi la ko denc kon moo tax nga xam ne nag kon weer wi euh, kenn waru ko yemaleeg weneen weer looloo tax sëriñ Saliou radiyallahu anhu dañu tënkal euh, diggante gàmmo ak sëriñ tubaa doon wax ne euh, yellut mukk mukk mukki ab jullit maanaam guddi gi nga xam ne nii moo moo moo jiitu euh, guddi gàmmo ak guddi ga ca ga ca tele maanaam ga ca tege ñu bañ leen a xàmmee ak jur maanaam guddi gàmm gàmmo war nga cee jëf loo xam ne nii danañ xam ne kat guddi gii moom moom lii nga ko jegeleel kon loolu lépp ay njàngale la yoo xam ne ni dafay wan Serigne Touba fi nga xam ne nii foofu la tegoon gàmm ak ni ko fonke woon ak ni ko bàyyee woon xel. yëngu rek ci bis bi waaye mën nañ ne weer wi ci boppam la daa màggal. ndax euh, si histoire dañuy wax ne saa yoo xamee ne weeru gàmmu ñëw na sëriñ bi maanaam ku ne xam na ne ku tabe la woon loolu moom ñëpp wax nañ ko waaye nag tab gi da daa gën a yokk ci weer wi. ba tax na sax nee nañ mag ñi sax saa yoo xamee ne am nañ yitte yoo xam ne dañ ko bëggee wax sëriñ bi ñu ci bëri dañ koy sakkanal ba gàmmu ñëw ndax xam nañ ne weeru gàmm moom su ñëwee rek saa yoo xamee ne seen yitte tab bi na ci nopp sëñ bi rek moom day dal di am ci dëgg la sax bu dul dana am waaye xëy na bu dee gàmm day gën a gaaw di wane Euh, kon nga xamne ne jëmmi weer wi fa ko sëriñ bi tégon waye wër wi xam nañ ne bis bi nga xamne moy mooy guddi nga xamne moy mooy guddi guddi fukki fan ak ñaar ci wër wi moy bis bi nga xamne ci li gëna wër ci histoire ci la ci la yunus sallallahu alayhi wasallam feñ euh, guddi gog nga xamne moy guddi fukk ak ñaar boy dem ci mbindi sëriñ bi da nga fa fekk lu bare bare bare bare bare bare sëriñ bi di ko tudd laylatu yabi sa yo gisee laylatu yabi ci bindum serigne bi rek xamal ne muy guddi gam ndax yabi yaala ak yaa mooy fukk baa mooy ñaar mooy fukk ak ñaar nga xam ne sëriñ bi da koy tudd lu bare bare bari ay xéewal yu bari yoo xam ne da koy wax ne guddi gàmm ko ko moo ko ko jox kon sëriñ bi xam na luy gàmm waaye euh, bàyyi na ko xel waaye nag daa ko dundal bu baax a baax a baax ci dundal goo xam ne gu am maanaa muy lépp nga xam ne rek dafa yàlla wax nañ ne saa yoo xam ne guddi gàmm ñëw na sëriñ bi da daa génn xëy na lim daa génn bariwul waaye guddi gàmm moom day génn manam dajale talibi yep ñu dajalo nga xamne di di di gudi, nga xam amul kenn ko xamne da nga tok do def dara loolu mu mënta nek bo bokku ci kuréel yi jang yaangi yor euh, Alquran di jang wala nga yor qasaid di di di jang nga xamne ne mom moom guddi gépp dañ koy magal bam bam bam bam bam mat sëkk. Euh, di gam euh gam go xamne nenañ nañ sonalo ndax jafé jafé bari won ndax jamono bobu neexut andak la jafe-jafe yu bari lol ak xat-xat yi teewul mom sa yo gam mu ñëwee rek lu mu am ci gam gi koy def ko def banim démé ci geej gi mo mm, fi lam fay wit wit bu su gam bu mu saan ñëw dem yo da koy def ay taranga eh, ko fa jaar mu jox la ci don dañu xamuñ sax lim ñu doon tax waaye rek xam na tax muy def moom yéen sama tax muy def daan gam ba bani mu ñibisé nak bi mu nak euh ci la gam gi. nga xam ne mm, nit ñi gàmmoo léegi ci gàmm googu la jógee ci la ko njëkk a muy gàmm goo xam ne dañuy def ay kuréel ñuy jàng jës bu jàng mooxit ñuy jàng moxadamaas ñuy jàng barsan bi mu ñëwee la ko njëkk a def ñu ko defee Daaru Manaan bi 1902 ah, lay war a doon gàmm googee wax nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ca. أمرقنا يقيني إلى الجنة ما ليس محمد يقيني إلى الجنة ما ليس محمد جذب القلوب لعلام الغيوب جلد بنك لا خامن ني موم بغ موي سا خول اك سا خيل اك سا خلات ليپ دلو سي يالا ا سيرن توبا نك مانام تور ييغا خامن ني موم لا تانال خصاي دامي موت مي دا فاي فنت خصيد غا غوغو داف كو تودي لو خامن ني دا فاي خيت دار امبكو kon képp koo xam ne ni euh, xasida googu yaa ngi cay ngoy di ko jàng xamal ne bokk na ci li nga xam dana ko dimbalee mooy sellal sa xol waaye xëcc ko yóbbu ko ci yàlla ba nga xam ne ni leneen du ca nekk lu dul yàlla boo gisee tamit ni ko Sëñ Tuubaa euh, taalife da ngay gis ne loola dëppoo naa moom daf koo tàmbalee sant yàlla subhanahu wa taala kañ ko bu wér a wér jaar ko ci alquran waaye ba mu ca noppee nag mu dugg ci yonente bi alayhi salatu wasalaam waaw gannaaw bi mu tuddee may yi nga xam ne nii moom ci boppam yàlla moo ko ko may moom Serigne Touba waaye mu xamle ne lépp lu mu ko may nag ci ñaar yooyu la ko jaareel mooy alxuraan ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam. jës bu nag day xasida goo xam ne daa boole loolu lépp waaye yéemu ci sax waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy histoire yonent bi sallallahu nga xam ne boo xoolee ni mu ci détaillé ci gën a àdduna yonent bi sallallahu alayhi wasallam doo ko fekk ci benn téere ci yenen téere mi nga xam ne dafa détaillé lépp njëkk muy ñëw ginnaaw bu mu ñëwee ak yonentam xar baax yi nga xam ne feeñ na fa ak li nga xam ne mooy alquran gi nga xam ne mën nañ ne mooy kéemtaanu yonent bi sallallahu alayhi wasallam gi gën a kawe mu beral ko cër bu mag a mag mag ci téere bi muy téere boo xam ne kon bu am solo la nga xam ne képp koo xam ne euh, xeeñtu mbooru yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy histoire yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñor na la boo demee ci gis bu na ko fekk lu baree baree baree bare mu wax ci jëmmi gàmm ci boppam waaw nga xam ne ci biir xasida gi ci la xam xamle lan mooy gàmmu ak solo si nga xam ne am na ko ak njariñ yi nga xam ne ki koy def dana dana dana ci juddoo loolu lépp it mu wax ko ci xasida gi nga xam ne mooy jazbul xulub li allaamil xuyub kon xasida la goo xam ne gu am solo la ala man xuliqa والقلق فاق قلقا كالقلق والتسلم قد كان ذا توسطي في القد جال سطتي walam yakun bil mufrati walam yakun bi aadami gis de moom booy xool day mel ne euh, dafa indi ñaari poñ yu am solo ci dundu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ca njëkk mooy dana ko portrait la ku xamul yonent salaam salaam te jàng gis bi na nga ko a jàngee day mel na yow waaw war ngaa mën a xam ne yonent bi mooy kii nii la mel nii la daan doxee nii la daan waxee da ko mën a xamal sa bopp ba daal da ko mën image bi dana teew sa xel daal gis loolu kenn am ko kon loolu la njëkk a indi ñaareel ba mooy sëriñ bi da cee sol mbubbum avocat ngir défendre euh, gàmm ci ñi koy def biddaa moom it indi leen argument yu leer ba gañe leen ci poñ bu mujj bi mooy mu indi nag kuy gàmm yan njariñ la la mën a jural yëpp mi ngi ci mi ngi ci biir jës bu euh, argument yi nga xam ne moom la indi ngir euh, leeral njariñ maanaam maanaam li tax gàmm waris koy def daraja yooyu nga xam ne ni moom la ko yàlla defoon defaroon lépp lépp lépp dafa mujj nekk nag koo xam ne ni dafa suufeel boppam ànd ak saxaaba yi euh, ba mu wàcce boppam ba mën a ànd ak ñoom ngir ñu mën a jëriñ ci moom waaye mu tëjewaat ko nag lépp mu delloowaat ko ci yonente bi alayhi salaatu salaam xam ne yàlla rek la la bëgg moom waaye benn bunt bi nga xam ne ni tamit moom la yàlla am nga xam ne ni képp koo xam ne jëm nga ci moom boo ci jaarut say mbir du mën a àgg ci ci fa nga fa nga nga bëgg mu xamle ne léppam delloo na ko ci yonent bi alayhi salaatu salaam léppam joyal na ko ci moom léppam bàyyee na ko ko moom rek moo ko doy doy ci ay mbiram. kon xasida googu ni daanaka tënk bi noonu lay noonu noonu noonu la fesee kon mu nekk xasida gu am solo goo xam ne nii xasida yëpp am solo waaye moom bokk na ci xasida yi nga xam ne Serigne Touba dañu koo baaxee ngir ñu mën a laabal suñuy xol. ngir ñu mën a laabal suñuy xel ngir ñu mën a ngoy euh, ci buum goo xam ne nii buñ ci ngoyee ci yàlla subhanahu wa taala la ñuy la ñuy génnee xëy na looloo tax sa sëñ bi boole ko ci xaside yi ñuy gàmmoo muy mawlid ji nga xam ne euh, boo fa ñu euh, ma ko waxee sànq kuréel yi nga xam ne moom lañ daa jàng yi nga xam ne moom la ñuy tàmbalee mooy mooy xasida googu waaw nga xam ne boo xoolee ñetti xasida yooyu mu tànn yëpp muy jës bu mawaa ibu muqaddamat boo xoolee yooyu yëpp day boo xoolee sax jës bu ma mawaahibu ak muxaddimaan moom day daa mel na ci jëmmi tàgg gi rek ak julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam la la jëm waaye jës bu moom dafa am lu mu remarqué woo ci xasida yooyu muy indi gi nga xam ne indi na ko li nga xam ne mooy jëmmi gane àdduna gi ak solo si nga xam ne am na ko ak ki nga xam ne da koy da koy màggal li nga xam ne moo mën a juddoo ci ay njariñ ci saa yoo xamee ne def na ko waaye nag defee ko ca anam ga nga xam ne mooy anam gañ gërëm te loolu sëñ bi junj na ko li muxlisin muazimi nga xam ne ki koy def day ànd ak sellal sellal nag bu ñu ko waxee mooy euh, nit ki li ngay def yàlla rek a tax nga xam ne doo ci dugal leneen loo xam ne bokk ci waaye waaye nga defee ko bis comme na mu ko waxee tanzimuhu bis sunnati mooy nga bañ cee dugal dara loo xam ne bokku ci nga xam ne ni nga koy anam gi nga koy defee lépp luñ mën a delloo ci la lay doon nga xam ne lenn lu ci yàq du ci du ci du ci du ci bokk nga defee ko it ak xol bo xamné bu sel la moy tax la nga xamné ne sëñ bi wax na ci bir xasida gi nga xamné ay njariñ yu bare bare baree bare xeyna man nañ ci jukki rek yenn yo xamné ne bi wax na ko faman yu'azzim mawlida nabiyyina babil huda fala yuhasabu gada faxtariman wa azimi nee na képp koo xam ne yaa xamal ne bu ëllëgee dee su la xisaab ne bokk na ci li wane kawek guddigi manam daraaje ji guddigi am فمن يعظم مولد غير البراية أحمد فك شهيد شهيد بدر بخير وحيد من كوكا مجل من كوكا كونتا نيدون خير بدر بدر كنا خمنا داي بيم أمون من بتي ومن على شيء قرا مولد سيد ورا تبارك فسيرا بالفضل خير كو خمنا فك نغا فون كاي ماغلي دا فاب صدر رفكي ne na da gis mm, loolee na muy yokke day dem ba jaaxal la sax ba tey ku bëgg lu baax bu ñuy gàmm loo mën a def ci teraanga def ko yóbbu mu ne ixyaau mawlidil bachir yaxmilan yàlla wa du fihi shifaun li sudur li kulli hadin yantami mu ne bokk na ci njariñ yi gàmmu it ku koy def day dundal sa kër day day aar sa njaboot ak ku koy def sa du bekkoor سان جابو تدي ادنين ارتيو بري بري بري مو واخا يعظم مولدا خير البرايا احمد فك شهيد شهيدا بدرا بغير وهل من كيب كو خاني ماغال كو ديغي ياغي يعني ملي اب شهيد تي ولا بوكو فكي غزوه بدر آه، يا يعني كان غزوه بدر خمنا ني موي آه، غزوه بيم غنا ماك موي خيخ بي غنا ماك تي الاسلام خاني يعني مو نجيتو خيخ ييغا خاني مان نان ني بودو موم خاينا الاسلام مان نا باغا تاخاو سيغ بي نيك كيب كو خاني ماغال كو ديغي نا تي انام غن كو واخه mel na ne fekkee nga guddi googu lool nag lu ñu mën a dégg la luñ ñu koy déggee mooy ki nga xam ne xam na yonent bi sallallahu alayhi ginnaaw bu mu ñëwee gëm ko cofeel nekk ci moom mu topp ko ñu ne bis bii da ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam gane woon àdduna mu ñëw màggal guddi googu ngir cofeel gi nga xam ne am na ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam kooku laa chaque année bu fekkee woon ghazwat Badr dana ca dana dana ca bokk kon lu ñu lu ñu mën a dégg la وهي نك موحر نيف كل من أنفق في مولده المشرف مالا بغير سرف ولو بقدر درهم فإنه كمن حضر يوم حنين وبدر ويوم بدر وصبر آه، يوم حنين ونصر وصبر ويوم بدر ونصر خير الورى مفهم يعني كيف بكو خمنا جلنا على لم ديبانسي كو تي غودي غام دونتي اب درم لا دونتي درم لا غاني يعني كون لول موي بول خيب دارا waye nak bi xëyri sarafi bu ci ag ànd ak ak yàq lañ cey def ak yàq bu mu ci bok neena koku kooku mel na ne ku fekkee xaswatu badr mel na ne ku fekkee xaswatu xunayni waaw kon lolit day fekk rek liñ waxon sank sànq ki nga xamne ne coxel am na ci mom ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba tax mu jël alalam def ko ci guddi go nga xamne dañ koy magale ak feñam koku la chaque année bu fekke won ghazwat yoy yoy yep dana ca dana ca dana ca dana ca dana ca bok li ko sëriñ bi dan defé te mënees na ko ñu koy defee noonu ci lañu waxtane ak sama mbokk. Mourtala Bousso ñu bokk dem ci sëñ bi la yàlla ba mu jox ci ndigal ah, ci lañ ko tàmbalee defe naa boobu léegi war naa mat ay mat jàpp juróom-benn dañu tàmbalee daal ne ko sëriñ daan defe ci njaareem ñu koy defe ci kër sëñ Tuubaa yëpp ñu koy defee noonu mooy buñ ci àggee eh, laata guddi gii sore danaa ñuy waxtaan ci siira naa jaar jaar yi sallallahu alayhi wa ba ay boori jàpp mi demi ñu tàmbali nag كوريلي بيدي جانغ جسبو بيدان دفي بي جانغ موحب بي جانغ مقدمات يعني جانغ البرسان بأسمان ست سوكو دفي بارب لا بو خامن ني سيرين توبا جارو في واي دفي نيو نيك في اب بير بو ياغ بو خامن ني داني واخني ماتنا جوروم نينت وير يو خامن ني بوب مي دك مباكي نيك في واي سا يو خي في لا دان نيو يور يور با تاكوسان با تالف اي اي اي اي خساير بري با جي فيس موي موي مسالك الجنان Euh, su ko defee wax nañ ne tamit euh, ahyaytu mawlidan nabi min asasi jooju am na ñu wax ne barab bi ñu ngi ko koy askanee leen fii la ko war la ko defee woon asalaamu ah, hi xataa matalayin fajiri jooju nga xam ne nii moom la ñu wax ci laytul xadri waaye noonu lañ koy defee tamit ci gàmmu nga xam ne ni fi la ñuy fanaan mu nekk loo xam ne tamit mel na ne waa dëkk bépp bàyyi nañ ci xel ñu bëree bëree bari dañu ñëw fii di ànd ak ñun euh, liggéey booba lépp li nga xam ne ni tamit moom lañ ci jublu jublu rek mooy sof ci li xam ne ni Serigne Touba moom lañ woonoon ci wàllu guddi gàmmu nga xam ne nii lépp loo xam ne nii bëgg nga ko àdduna ak alaaxira Sëriñ Tuubaa xamal nañu ko ci jës bu ne mooy faj soxlay àdduna yi di faj soxlay alaaxira yi boo bëggoon sax garaatab bokk ci ñi nga xam ne dañoo xeexoon ca ca ca ca Badar ba ànd ak yonent bi sallallahu alayhi nga xam ne yonent bi dafa leen dafa leen a xooloon ne leen yéen de amut lenn loo xam ne ni mënante na leen la euh, lor ci wàllu bàkkaar yàlla jéggal na leen seeni i yi njëkk ak yu mujj kon ku bëgg dugg ci loolu sax Sëriñ Tuubaa nee na bokk na ci li nga xam ne dana ko maye mooy màggal guddi gàmmo kon looloo tax bu ñëwee rek ñu ànd ak kilifa yooyu nga xam ne ni ñoo koy jiite ñu ànd ak ñoom màggal ko ni nga xam ne ni tamit eh, na ko Sëriñ Tuubaa waxoon tanzimuhu bi sunnati yonent bi salaa salaam eh, moo wax moo ko moo ko xamle al bidaatu eh, wax ne lépp loo xam ne dañ koo sos ci diine bidaa la waaw bidaa nag buñ ko waxee mooy loo xam ne amul cëslaay ci diine amul cosaan ci diine ci ñi nga xam ne noonu la ko yenn ci borom xam-xam yu fi de te mooy ñiñ jàpp na it ñooy ñu ëpp ci borom xam-xam yi muy wa ahlus sunna wal jamaa nga xamne man na ne sax moy al al ashariya muy kuréel gi nga xamne ci walu pass pass mom lañu top te moy li sëñ bi jàngale ne nañ ci nek liñ xamle bidaa mooy loo xam ne rek amul ciosan ci diine nga xamne tay lu bes tak la lo xamne ne ko xol ci bir diine ba xam ba amal ko ciosan xamne lolu kon moy liñ sos ci diine bu de lo xamne nak ciosan la xam nañ ko ci diine Euh, nga ñëw di ko def loolu de su ko tuddee bidaa wala sax buñ koy tuddee bidaa it dañ koy tuddee bidaa xasana muy bidaa bu rafet loolu yenn ci borom xam-xam yi séddale nañ bidaa bidaa xasana ak sayyi'a muy bidaa bu ñaaw ak biddaa bu bu rafet bu dee mbirum gàmm nag am na ñoo xam ne ci borom xam-xam yi foofu lañ koy dugal muy mën naa nekk bidaa muy luñ sos bidaa baatu arab la boo xam ne day fiiri lu bees waaw lu bees rek luñ innové nga xam ne amutoon avant waaye nag bu fekkee ne nag amutoon waaye la la ko composé lépp boo xoolee ci diine da nga ko ci fekk loolu bidaa xasana lañ koy tudde te gàmm mënoo cee gis dara loo xam ne amutoon ñu ciy def mooy ja maanaam fàttali kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxta euh, maanaam histoire am tagg ko ak ak yu ni mel jàng alquran jàng jàng jàng jàng jàng siiram nga xam ne génnut loolu yooyu nag amu ci benn boo xam ne l'islam indiwu ko kon même buñ ñu ko doon tuddee bidaa it bidaa xasana lañ koy tuddee waaye liñ jàpp sax mooy du bidaa waaw sëriñ bi nag fii bi muy wax naan tanzimuhu bi sunnati firiwut ne day wax ne màggal gi sunna la ndax sunna luñ xam la mooy loo xam ne yonent sallallahu alayhi wasallam koo jàngale maanaam mu wax ko mbaa mu jëf ko wala ñu def ko ci kanamam mu saxal ko loolu borom xam-xam yu loolu la ñuy firee sunna mooy loo xam ne yonent sallallahu alayhi wasallam def na ko mbaa mu wax ko mbaa ñu def ko ci kanamam mu saxal ko boo xoolee gàmm nag xëy na ci anam gii ñu ko xamee mën ñoo wax ne yonent bi noonu la ko defee donte daana def lu koy mën a tegtale tuuti muy gudd bisub altine bi nga xam ne ci la gane àdduna wax nañ ne daana ko woor woor gi mu ko daa wooree nag bañ ko laajee dana woon ndax ci laa feeñ jamono kon moom mën nañ ne màggal na bis ba waaye nag jëmmi anam gi nag nit ku mën na koo defee nu ko neex li fii nag dàqowut ak lislaam waaw kon ñiy wax ne bidaa la xëy na ñoom ci seen déggunu bidaa xëy na ñoom may may na leen ñu ne bidaa la ndax ñoom noonu lañu déggee waaye ñun nag suñ déggin ci bidaa wax dëgg yàlla mayuñu ñu jàppee ko bidaa bi sunnati mooy na koy defee na loo xam ne du dëppoog sunna la waaw du dëppoog sunna la mooy li ma doon wax sànq ne bidaa man na la pour mu nekk bidaa bu rafet mooy la ko composé lépp na doon loo xam ne boo demee ci sunna da nga ko fa da nga ko fa fekk taxsimu bi sunnati yaqutuna lil jannati بازدياد المنة لمولث معاصمين